yiw maanaam bokkoon nañ ci concours international boobee nga xam ne ci lu jëm ci wàllum tari alxuraan la yéene kaay gi nee na lu toll si juróom-ñett fukk ak ñeent maanaam ñoo doon participer journal bi di réew mi quotidien nee na Mohamed Mahi Touré mi nga xam ne fan yi ñu génn moo jël prix Sénico 2021 bi maanaam moo jël première ci catégorie 1 bi yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy di jaajëfal mboolem doomu réew Sénégal yi nga xam ne maanaam ñoo ngar dajjool li nga xam ne mooy prix ca diwaanu Maroc yéene kaay gi de la Tribune Les Échos laas xëy wax ci lu jëm ci wàllum audit fichier électoral beek li nga xam ne moom lañ sa nemmeeku ay giraawaale ki njombe yu doy waar doy waar la ñu nemmeeku ci li nga xam ne maanaam mooy fichier électoral bi experts yi ñoo ko wax yéen a kaay gi nee na lu toll ci neuf cent personnes yoo xam ne bindu nañu te nag yoruñu li nga xam ne mooy carte d'identité la ñu doon bindoo maanaam mooy ay extrait de naissance lu toll ci cinq cent mille personnes bindu nañu waaye nag la ñu doon bindoo mooy ay certificat de résidence maanaam li nag giraawaali la génn xeetu xam ne ko waaye natt daana koy passé te nga xam ne moo ci a na ñoo xamante ni bindu nañu yees te jamono ji nga xam ne moom la bindu maanaam révision fichier électoral ba boobee jotagul ah maanaam ubbeeguñ woon li nga xam ne mooy fichier électoral ba te nemmeeku nañu xam ne maanaam bindu nañu yéen a kaay gi nee na fichier électoral bii maanaam Malaisie ko doon gérer ba ci biir journal bi nee na en tout cas daal giraawaal yeeg yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci fichier électoral bi doy na waar génn xeetu doy waar koo xam ne fu ko waay nat daan na koy nit ana nan la mën a bindoo ci a li nga xam ne mooy autopont bu Lobat Fall ca Pikine waaye nag waa APR Pikine ñoo fa naroon a yoo xam ne maanaam musiba ma bu kumbala ndax ñi nga xam ne ñoo fara ak Pape Gorgui Ndong ak ñi fara ak Cheikh Tidiane Thiam ñoo fa naroon a xeex yéene kaay gi ne a ak mbaadoo la gu rëy la fa waa APR wane waaye waa APR ñoom seen bopp ñoom munta dajee fenn te duñ xeex wala ñu nag saagante wala ñu tojantey bopp yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy ci armée sénégalaise bi nga koy tudd ci scandale bu rëy boo ni jéggi na dayoo yéene kaay gi ne na xam ngeen ne militaire yi nga xam ne ñoo am ay gaañu gaañu ci guerre yi militaire yooyu nag dañu leen di faj di leen jox ay médicaments yoo xam ne du ci fay dara maanaam ay bon leen di bon yooyee nga xamante ni moom lañ leen di a faju ak ay garab maanaam ay médicaments ak furóon moo sa ay njuuj njaaj yoo xamante ni jégg na dayo yéen kaay gi di source a nee na Marème Faye Sall jël na suukaru koor su bare bare bare bare yóbbu fi nga xamante ni mooy Touba journal bi nee na dafa bëgg am ndam yéen kaay gi di Vox Populi xëy nguur dafa wax Babacar Ngom mu daal di koy dakkal yéene kaay gi de la Soleil nee na ñi nga xam na ñooy mbintaan yi maanaam ñiy liggéey ci kër yi jamono ji nag jaxanama moom la ñuy dund amuñu ay contrat te na ñoo ngi leen di harcelé teg leen finna di leen di liggéeyloo 24 heures sur 24 maanaam jàppe leen ay jàmm yéene kaay gi de la Soleil nee na en tout cas mbindaan yi daal jamono ji sonn nañ ba maaraletal yi ak tumuranke goo xam ne moom la ñuy dund yéene kaay gi di Rewmi ñëw na ci baccalauréat beek yeesal yi nga xam ne maanaam moo si am léegi daal anticiper philo amut xam ngeen ne philo bi maanaam dañu ko doon def bu ñu demee lu toll ci benn semaine ñu amal li nga xam ne nag mooy baccalauréat bi léegi nag lépp la ñuy boole yéene kaay gi di Les Échos nee na Kër Massar benn waaye la ñu fa jàpp ab trafiquant de yamba yéene kaay gi nee na waa ji daal nga xam ne fa la dëkk ca kaw terrasse ba fa la doon bay yamba yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na Touba lu doy waar moo fa xew benn xale bu góor boo xam ne juróom-ñetti at la moom daal dañu ko fekk ci maalu bu oto 4-4 maanaam mu ñàkk bakkanam yéene kaay gi nee na ubbi nañu sab enquête yéene kaay gi délibération nee na scandale honteux lii dafa ñaaw stade Lat bi nga xam ne moom la Sénégal yaakaaroon ngir nag jubalee fa li nga xam ne mooy éliminatoire mondial 2022 stade boobee nag mujj ñu ko homologué la ko waral nag dafa am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum vestiaire ak wàllum toilette loole nag gàcce la yéene kaay gi de la témoin nee na am na loo xamante ni sax dafa ñaaw Sénégal mën nañoo wax ne moo jël première ci classement FIFA ci Afrique ba pare nag jël ndàdde jël ndàdde ci lu jëm ci wàllum infrastructure sportive yéene kaay gi de sat nee na Paris saint